ministre bi yor euh, agriculture bi euh, monsieur Mabouba euh, Diagne sur financement bo xam rek mhm. jot nako si mhm. ferme bi nga xam mom lay diriger gàdd gi mu ngi si écran bi que dafa bénéficier si ay financement yu jógee si ay FONSIP ak yenn ay banque mu melni comme mun nañ wax né les détracteurs dañ koy djema moi euh, jugé par rapport ak yi nga xam ne moo ce financement d'où ma question est-ce que dañoo wax ne boo bokkul ci parti ou sax nga nekk euh, benn acteur euh, au développement munoo am ay financement yo xamné ne dafa jóge si mbir bo xamné ne ci institution bo xamné état moo koy pourquoi les gens agitent ce débat mais loolu wax du yakul c'est-à-dire ñom ñoo wa APR ak Benno ñom ñoo commencé di crier victoire nan wa ki limu am ñun contribuer mais c'est un sénégalais njàpp yow mi war nga mën a jël say kayit yóbbu ko dem euh, nu ñu koy waxatee sax. Mm-hmm. Euh, fonds de garantie boobu nu mu tudd sax fonds jib. Mm-hmm. dem fonds jib ñu lebal la xaalis war na mën a nekk te boo ko affaire boo ko benn war na mën a nekk. Mm-hmm. mais suñ la lebalee mu am réussite c' est vrai am nañ mérite mais ka def réussite bi tamit am na mérite. ñaata nit dañ fi lebal seen xaalis dimul fenn euh, kenn am amu réussite tey ji ñu ñu dóor xaalis dem tëddi nelaw seen kër ñaata nit. wax ju yàqu la kii ñoo ko lebal moo mu yegg fi wala ki ñu ñoko ko mais du loolu la leen di fale mais c'est pas leur argent hein. du sen xaliss c'est vrai du sen xaliss parce que dafa leen di fay moom jox ni hmm. té fofu lañ leen doon xaaree sax té loolu dafay wané né tay ji amna ay sénégalais ñu bo leen appuyé ñu def résultat c'est un exemple de réussite c'est un exemple de réussite dafay wané né ñi bo leen appuyé ñu def résultat té gadam gi ni nga xamné mom moom mom ñuy moom moom ci télé bi ni hmm. mais dañu wara def ay effort bu mu bari ci Sénégal bu mu bari ci Sénégal hmm. te genre yi man je me dis que tey jii ni mu meloon nañu wut ñu mel nii nga xam ne def nañ yii nii mu am réussite ñu dénk leen Prodac ñu xool. Mm-hmm. parce que c' un projet ambitieux bu mën a employé ay jeunes mais bu mën a dimbali tamit réew mi ci wàllu mbay meek ñu ni toll mais malheureusement dañ ko jox ay politique ñu yàq ko. Mm-hmm. tey jii boo amee ku mel ni buuba ci domaine agriculture bi nga dégg ko Prodac nga xool. mais d'ici quelques mois mu def ay résultats extraordinaire loolu la ñuy xaar ci ci ci ñi nga xamante ni moom lañ dénk mi mais pas ji par exemple nga ne Prodac concerne les jeunes nga jël sa benn jeune parti boo xam ne xamul lii mbay. Mm. xamul agriculture xamul dara dara dara ci bay nga jël teg ko fa ne ko kaay coordonné programme bi mais yaa yàq programme bi. Mm-hmm. kon pour man ñi nga xamante ne mooy euh, classe Mabouba bi c'est des gens yoo xamante ne dañ leen war a encourager dañ dañ ci war wut yu bëri multiplier yu bëri. fexe ba ñoom ñi nga xamante ne euh, lii ñu def ba jaar ba réussite ñu joxe fem bi ñu joxe clé bi ñeneen ñu defaat ko réussir ni ñu ko amee euh, tuddee ko gàdd ga wutaat ko feneen wutaat ko feneen wutaat ko feneen ba nga xamante ne dëkk bi dinañ am bërëb ci toll ni yu ni mel euh, ba suñu agriculture mën cee gis boppam et je pense que euh, lolu lu jar encourager encouragé la. Hmm. tamit dafay wane ne tamit Macky Sall euh, fonds yi mu daan jox nit ñi amna ci ño xamne ne fa lañ jaaree réussir. c'est vrai ak nga bëkk wala nga bañ ko. c'était un bon projet. non c'était un bon projet. oui c'était un bon projet euh, fonds de garantie yooyu man gis na ci ño xamne ne fa lañ jaaree tek seen business ba légui tay ji alhamdoulillah ñi ngi ci leneen. Hmm. kon tay ji amna côté bo xamante ne na wax dëgg yalla kenn mënu ko kenn mënu ko critiquer mais malheureusement li ñi doon jottu rek moy ni ñu ko politiser woon. boo bokkee ci parti mu yomb boo bokkul ci parti doo am wala mu yéex lenteur ci amoon je pense que ñi nga xam ne ñoo ñëw ni euh, dinañ ci def ay djégo suko ko surtout ci entrepreneuriat ndaw yi gën see gis seen bopp. Mhm. merci beaucoup euh, Mustapha juste rappeler rek yéen a ngi euh, émission bi minute d'entretien bi nga xamné ne da leen koy proposer du lundi au jeudi à mhm. partir de midi avec Mustapha. ñuy def analyse par rapport ak wayum réew euh rupture bi nga xamné ne annoncé nañ ko les perspectives dina waxtané sujet yépp walum politique économie sociétale éducation.

Mhm. quatre rek lañ gis euh, ñu représenter li nga xam ne nek nekk euh, jigéen ñi si euh, boobule gouvernement Mustapha ñu gis né féministe yi ñu tuddee seen bop féministe yi ñoom fu mu toll ni dañoo mer bu futu par rapport ak la composition de ce gouvernement Mustapha wa mais xam nga féministe yi man dama japp né ñom seen bop dañoo déssé gëm seen bop ñom seen bop dañoo déssé gëm seen xam xam nga lutax mo wax loolu Anta Babacar ngum du won jigéen la on n'est-ce pas. waaw bokkoon ci ñaata l'am 0,1% virgule am ko ñom ñom lu tax woteel ñu Anta ba Ngom te mom donc moo fa nekkoon jigen mo rëccoon ba ñuy def sélection euh, conseil constitutionnel. Mm. ñaata jigen ñoo jël seen mbir yóbbu dem sur 19 neuf ben jigen mo ci duggoon ñaar lañ doon après kenn ki dal di retiré wu. loolu nañ def pourcentage bi xol ñaata lañ am dañ ne gouvernement bi lañ ci am loolu nañ def pourcentage sur 20 nga ci deux ñaata nga ñaata lay doon du zéro virgule cinq mm. te fee sax am nañ 13% c'est pour vous dire que te fofu sélection naturelle la won da ngay jël seen bii dem lu yóbbu conseil constitutionnel mérite wane ak say documents yu baax wane nga jàll fa mbir mi jàllee naturellement ñaar ñoo fa jàll. Hmm. ñaar ñoo fa jàll. yéen léegi Anta Babacar Diallo lan moo tax féministes yi defuñu bloc ci ginnaaw Anta Babacar ñun dañoo bëgg féministes yi jigéen seen bopp ñoom dooleeluñ jigéen ba pare di bu doon dooleel jigéen Anta Babacar def score bu honorable ci élection yi. Hmm. nga dégg ñu ne au moins Anta am na ko. mais ñoom ñiy xeex loolu tey jii di xal jigéen ñi nekkal ñoom si ay góor la ñu voté wañu si ginnaaw góor di ko jàppale est ce que xam nga li ma la cest à xeex bi ñuy xeex sax ñun gëmuñu ko parce que bu buñ gëmoon xeex bi pour man li ñuy xeex danañ ko romb fii tey loolu benn mbir la beneen mbir bi ñuy ñëw tey jii ñoom féministes yi nga xam ne dañuy xeex ne dañ leen dañ leen a dañ leen a néewal doole ci gouvernement Ousmane Sonko bi euh, parce que parité ci instance élective yi nga xamante ne comme assemblée yooyu xeex nañ ba am parité fii lan moo tax gouvernement au moins waroon nañu am moitié bi jigéen wala yu ni mel ak yooyu noonu mais tey jii man njàpp dama bokk si ñi nga xam ne man gëw ma parité du question que ni damay xeex euh, féminisme wala jigéen ko xam nga tax gëw ma parité man mérite laa gëm njàpp fii nga toog ni su fekkente ni juróomi góor dañ fi taxaw njaaba leen ko dàqate bàyyi leen njàpp mu toog mm. su fekkente ni góor yi ñoo la mën bàyyi leen góor gi mu toog def ko man mérite laa gëm ak résultat mais mais question de genre non non non. mais Moustapha certes mais carrément si allié yi wala sax si Pastef euh, amul jigéen bo amul six jigen wala sept yo euh, poste yi nga jox aussi occuper aussi ces fonctions Moustapha. Euh, on a vu vraiment des femmes qui ont ramené ces Pastef Nous ñu ngi des femmes qui euh, ont yu aussi a nomination diplôme il a xam nomination toujours même ñaari sey compétence confiance day compétence ah, non non mais bu y confiance mais du du loolu kese am na yu bëri yoo xam dafay ñëw ci ci ci ci ginnaaw étoffew tey jii par exemple bu ma buuba bii nii ngay gis nii ak résultat yi mu def mm. nii ak toolam yu am ni c'est vrai mën nga am beneen jigéen boo xamante ne dina ko def mais est-ce que am nañ même parcours bi est-ce que li nga bëgg ci kii carrément mën nga ko am ci kële buñ jël affaire bi ñëw bu ko riddul ko ci affaire u genre kii jigéen la moo tax kii góor la dañu dem ba léegi dañ ko commencé def suñu bopp bopp bopp yenn jigéen yi maanaam ñu gëm ne te loolu pour man limite la pour man limite la jigéen war na mën a ne man damay taxaw am dayo boo xam ne damay ëpp taxawaay sax sama borom kër di liggéey ba diplôme am na ñoo xam ne ñoo sut seen i diplôme seen i borom kër am nay soxna ñoo sut diplôme seen i borom kër ñoo ko sut si grade ñoo ko sut si liggéey ci lu nekk. Moustapha je suis d'accord avec toi en partie mais la remarque est que au Sénégal les femmes vraiment. peine si walum politique di yegg si yenn station yi te bo xolé euh, famille liguey buñ ci apporter sax wala compétence buñ ci am des fois góor yi ñu bokal li nga xamné mo moo nekk sax sen parti bi euh, ñom di nga ko am da fay melni comme euh, bataille dañoo bëgg rek jël famille ñu jouer li nga xamné ne nekk de dernier dernier rôle mu melni comme aussi il y a cette manque de générosité aussi si góor par rapport ak les femmes nous on demande rien hein. demandé une ben privilège que ñu

mais jigen ñep xam nañ ni jigen bu amé mérite bi am njàng bi am diplôme dañ koy jox mu dem mu dem gérer. ji rejoindre naa la fofu de mais mëno ma wax que ñom sen gouvernement bi il y mm. avait pas des femmes aussi compétentes que des garçons. yu nga xamné de da de da da leen fa fal loolu vraiment euh, c'est c'est c'est un truc sénégalais. pour ne pas est, africain non est-ce que profil yi ñu soxla jigéen ñi jigen jigen ñi jigen ñu ko wara jox am nañ ko. man xam naa ne am nañ ko. est-ce que am nañ ko. xam naa ne am nañ ko non non xam naa ne ngay wax. <laughs> est-ce non man je sais

su fekkente ne liggéey bi ma soxla am na ñett cinq jigéen ñoo xam ne ñoo dàq liggéey bi cinq jigéen laa jël ñu liggéey ko man loolu laa gëm mm. man pour man boo nommé nit ki da koy nommé ci ci ci mbir am na équilibre mun mënoo jël ni mu vingt cinq ministres yëpp nga def ko góor loolu ko defoon àdduna bi daal sa kaw am na ay équilibre yoon foog nga joué mais euh, dem ba équilibre yooyu nga jël ko fàtte ko parce que parce que jigéen la mais partie bi ni moo ñu yóbbul assemblée nationale te fii ba ñi ñi ñi ñu koy waxatee xawma nu war a waxati fii ba àddina bi di tukki assemblée nationale bu Sénégal bu ñu woyee ak parti bi ne assemblée nationale bii dañuy am lu ñuy am ay assemblée nationale ay kuramaki ay ñoo xamante ne amuñu benn formation. Mm. dañ leen fay teg ñi teesante di dàggasante di wax lu leen neex te lan moo ko waral tey ji mm. parce que dañ la indi parce que amoo mérite bi amoo dara lan moo la ko indil da ngaa woon benn xale bu jigéen. ku jigéen kooku nommé nañ ko ministre yow nga daggee ca làng ga ñëw ñëw ñëw nekk suppléant daal dugg dugg ñoon assemblée nationale du benn formation du dara loo topp nga dem toogi noonu assemblée nationale yor say kokat ku jóg nga tàcc ko. mais parti muñ ko yóbbee mais tey ji non dama la benn affaire tey ji par exemple ñaata ñoo fi defar liste man ak sama benn copain ñu sonn lool ci parti bi. Mhm. man ma nekk expert moom mu nekk professeur. parti war a mën a ba boole dooleem assemblée nationale benn soxna si ñu amul topp suñu ginnaaw mooy soxna soo xamante ne benn benn institutrice la boo xam ne dafa nekk na ci gi ñuy defar liste ñu ne foog ngeen obligé man su ma ñëwee sama copain bi du ñëw waaye soxna si mooy ñëw mais boobu xaruñu xañuñu benn valeur sur assemblée nationale te pourtant ki topp si man sama numéro deux parti mm-hmm. sama numéro deux parti Euh, agrégé la wala professeur la ñu ne ko non non doo ñëw indil xale bu jigéen bi nga xamante ne niveau euh, niveau niveau niveau CM2 nga dugal ko ci après su ma paree ma dugal ak keneen sama parti amul jigéen ñu ne ma indiwaatal keneen koo xamante ne amul benn formation indi keneen ko jàngul indil keneen ko aay ma da ko teglante noonu après léegi liste bi jàll ñu dem assemblée su ñu am 10 députés ci biir 10 députés la yàlla xam doy na loolu la jural. loolu Euh, homme bu mérité place ken jox pas cette parité juste pour faire la parité je reformule la question me pose la belle question pour ramener peut-être vous euh, concerné les femmes parce que aussi dañuy gis né aussi euh, si politique bi les femmes yi nga engagé wu dans la politique mun wax ne entre guillemets c'est pas des femmes yi nga peut-être en termes de diplôme ou mhm. même d'intellect am ko bu bi donc si ñun femmes nga xam dañoo bëgg euh, arriver si euh, poste yi nga xamné ne euh, gëna kawé est-ce que waruñoo gën impliqué parce qu'il y a tellement de femmes d'intellectuels au Sénégal intellectuelles ici au Sénégal mais politique nek loo xamné bëgg nañ ko tay pour rek mëna a casser li nga xamné mom nek lu ñu gis au Sénégal depuis Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Wade a essayé avec cette histoire de parité à l'Assemblée nationale disney l'union lu ñu jural est-ce que femme yi waruñoo impliqué li nga xamné mo nek ci si politique pourrait bi prétendre à des postes yu élevés. Wa loolu mooy jéego bu njëkk bi. Nous sommes biir ñu faisons bâtir leadership féminine bo ñëpp dañ je suis leader soxna Je ne jouer le second rôle. Mhm. suñ ko defee ba def aw say am doole ñëpp xam ne soxna yi Je suis mais su Je suis amati. Mhm. ñoom nous sax remarquer voilà di mais pas chaque jour góor ñi leen xëcc mais ñoom seen liggéey la ñoom féministes yi mm. ñoom féministes yi wax ni tey ji lan moo nañ nañ nañ construire benn candidat dem présidentiel xool ñaata la ñu am mm. fii est-ce que na fi am mm. doo ko gis Mariam Wane li ba mu demee gis nañ la mu amoon euh, euh, professeur Amsatou Sow Sidibé Juma Dieng Diakhaté Anta Babacar Ngom ñoom ñëpp gis nga résultat yi ñuy am te pourtant ay soxna lañ yoo xamante ne tey ji euh, am na si ñoo xam ne am nañ njàng professeur Amsatou Sidibé mënoon a amul njàng mi mais lan moo waral tey ji bu demee élection am score boobu mu am. problème société la problème problème perception la culturel la société la gis-gis la. Hmm. problème sociologique la donc loolu tey ji mënoo xëy du jour au lendemain nga ne day day day day dugg c'est vrai bu tegee gouvernement mënoon nañ ci gën a doole hmm. loolu c'est mën na am mënoon nañ gën a dolli jigéen ñi mënoon nañ def nii mënoon nañ def ne non mais loolu man man man gëw ma may njaab man gëw may. mais mais je man dire, may. mais y a des déedéet njaab du ma ak yow may retiré may gëw may. Wa dégg wa d'accord. je retire le mot may. ñu ñu jox ñu. c'est sept ministères clés ay ces ministères yu xamné yu am doole déjà ñun suñu ministère euh, de la femme et de la petite euh, de la de la famille bi ni légui ñom génne neen sa femme légui de la hmm. famille mu melni ko ñun dañoo bëgg réduire rek les femmes ces famille les femmes rester dans les foyers et gérer aussi euh, la famille famille femmes yi Lolo, ne loolu loolu c'est une correction à apporter ministère de la femme et de la famille la ñu def mais ministère de la famille Lolo, c'est vraiment réduire la femme pour mu nek, euh, la femme bokkul ci famille bi. Euh, famille boo ko waxee femme bokku ci. ah ma ne yaa loolu jeexul loolu la ngeen compliqué loolu ngeen compliqué da ngeen compliqué ba ni ñuy bindee femme sax nee nañ bàyyi nañ ma ëllëg def te defuñu ci ah. on n'est pas compliqué <laughs> da ngeen compliqué. <laughs> la femme ne fait pas partie de la famille. Moustapha, on n'est pas non, compliqué. compliqué. non, non, on femme beaucoup de famille. Euh, certes, quel la famille sans femme la famille sans femme Moustapha, mais... détails, C'est pas des détails. détails, détails, non, Non, non, non, <laughs> bàyyi ni ngeen def njàpp urgence ñu ngi feneen ay tokki naa ñu ñun femmes yi génneen gis nga jigéen. mais non je suis ne ñun ñoo ko war a mënee euh, su suñu biir je suis d' accord mais nañu delloo suñu femme bi ak famille bi. yooyu ay détails la man je pré man je préfère ci terrain bi ñu def fi loo xamante ne jigéen ñi nañ ci gis seen bopp famille nañ ci gis seen bopp xale nañ ci gis seen bopp. Mhm. tey jii ñaata soxna ñoo fi toog tey ji xamuñ sax ministère nuñ koy intitulé xamuñu ko. yooyu ñoo ne intellectuel bi élite bi ñoo toog fi naan waaye du genre nangam ak nii on veut prendre mais ñoom li ñuy def ne est ce que loolu mooy souci femme bi nga xamante ne mi ngi Bambilor wala mi ngi Bayax toog kooku souci am est ce que nekk fii la naan ay non dama temps de ministre la non non du seen nga pour man dañu nekk ci kaw élite bi dañuy juum mm-hmm. te loolu c' vrai combat la bu war a mën a mu dem at ci kanam ak ndànk-ndànk la am mooy lan non jigéen waratul toog kese moom kese kër ga jigéen warul toog jëkkëram xaar ga dafa war a xëy man ñaari loxoy takk sër ñaari loxo damay dem nga xëy dem ma xëy def nii mais attends c'est c'est vrai war na mën a nekk mais société du ñu mané de. Moustapha euh, il faut arrêter de dire que yo instant yaa ngi wax comme les matchs il faut arrêter non non non non non non il faut arrêter de <laughs> dire ça parce que c'est des combats yo xam man jàpp naa ne ñun jigéen ñu ñoo euh, combattre une fois parce que. Euh, non non si si si si parce que yo ligue non parce que je je vois sur les commentaires am ñu naan ah, dem nangam nangam na jigen yep dem sëyi ngi xool ne ndax la société va marcher parce que un pays bo xam l'opposition lu ëpp si ay population ay jigéen len te bo démé sax même si école yi wala même sax si ay institutions yu am solo c'est les femmes qui dirigent là-bas mais leur présence euh, si espace politique bi lañ leen leen en fait man pour man problème bi c'est à ce niveau. lolu ñoom ñoo koy xeex loolu njàpp ñoom ñoo koy xeex du len ko may. moi je suis d'accord espace public loo fa am dañ la koy da nga koy xeex. mais des fois yéen ay structures am doole yéen da ngeen a six aussi. non 6 suñu. non vous êtes 6 suñu 6 suñu déedéet déedéet six suñu de six suñu. lolu dañ koy xeex mais bu fatané société sénégalaise société patriarcale père bi paternité bi danaka lepp ci moom le reposé wu. Hmm. booy xool autorisation booy xol lepp lepp lepp danaka autorité ak lepp daf koy identifier ak hmm. góor ki loolu mënoo xey du jour au lendemain nga bëgg renverser mënul nek mënul nek société yi nga jël référence yeneen société yi bokul ak société sénégalaise bi ñu parcours ñu histoire fi mënoo ñëw. mais c'est des combats. d'accord nak yow euh, qu'elles ont mené et qu'elles ont gagné. voilà mais du yomb en tout cas. waaw buñu amé genre euh, profil yi ngeen euh, comme comme genre Mustapha yi du yomb mais ñun dineen imposer. non non man man mérite la gëm. man tamit mérite la gëm man tamit mérite la gëm mais il faut aussi que euh, vous sachiez laisser la place aux femmes. bo ñoy taxaw ba c'est la place aux femmes pour lan pour lan. femme bo xamné parce que femme la rek ma baye la place pour lan non suma may la place dama fa ne femme bi moo mën ndiap man suma jangé par exemple ma am sama diplôme ñu génn toog. mu am am soxna soo xamante ne man peut-être man maîtrise daa yem. Mm-hmm. non ma rek ma am soxna soo xam ne ñëw na am na doctorat am toog. ñu ñaa ñëwut même poste mais est que dinaa taxaw ñu ne dama dama nañ ma jox place parce que góor laa déedéet. Mm. nañ jox place bi soxna si parce que moom moo gën a mérité. Mm. mais suñu ñëwee soxna si am licence man ma am master 2. waaw léegi ñu ne léegi nañ jox place bi soxna si parce que soxna la. il y a des femmes qui méritaient vraiment euh, accéder à ce gouvernement Mustafa. c'est juste on est dans une société sénégalaise euh, Par euh, les hommes comme Moustapha ils sont pas assez généreux pour mettre mettre vraiment les femmes au door si société bi ñoo leen di ci si kër yi ñoo leen di door rédaction yi fépp lu politique bi mënoo leen ñu seetlu amul mais parce que carrément vous êtes des machos vous êtes des machos te femmes yi dëggaluñ seen bopp <laughs> loolu kese la c'est un combat c'est un combat combat bu ngeen war a mën la ngeen gañe ko je suis combat la voilà je suis d'accord mais bu ngeen ñëw du lonk ci ginnaaw góor ñi naan nañu may ko poste nañu def en plus benn instant mais Sénégal war na mën a dem ba am président boo xam ne jigéen lay doon non je suis d'accord mais ah. loolu liggéey la je suis d'accord bu ñu amee koo xamante ne am na profil bi sénégalais non je suis d'accord. avec Gour, nous ñu euh, une femme bi ñu euh, madame la présidente du Sénégal mais comme nous ko waxé rek ñun femme ci si ñun suñu ah, on préfère être derrière les hommes sénégalais to hommes sénégalais yi euh, paré nous pour rek diriger C'est vraiment quelque chose de politique de culturel mais di